boo xamante ne aussi euh, Jamra daf ko porté ginnaaw euh, bu mu amee yoo xamante ne xew na fi mm. ci ay xale yoo xamante ne dañ leen di détourné jëlee leen ci seen ay euh, diine mm. bëgg leen dugal ci yeneen diine wala ci yeneen loo xamante ne sax daanaka mm. nduroowul ak diine vraiment ñu bëggoon nga ñëw ci cas parce que ñu ñuy signalé temps bi li ñu desee bëriwul deuxième équipe bi mi ngi war a ñëw pour la deuxième partie ñu tënk ko rek waaw loolu combat boobu ak fuñ ci toll dañu koy tënk rek waaw ndax wax naa ko sànq ni ñu yàlla nattoo rek ba lu xew. ñu ne waa ana Jamra xanaa li Jamra yow. Ah, waaw xoolal école bi lu xew rek ñu ne ani waa Jamra ah, loolu moom eh, gëm yàlla mu ngi nangu ci tàmbali eh, nangu mu ngi tàmbali ci nangu ay dogalam nangu nañ dogal yàlla. ci noonu. Mhm. semaine bële yéen ñëpp ni ngeen toogee rek daal di dégg eh, fii ci Grand Médine dama doon seeg photo Abbé Jacques Seck mais xam naa après. Mhm. ñu dégg ci réseaux sociaux sa naataango Lalla sekk bi nekk Dakar Buzz mhm. waaye vidéo bu doy waar Alaaji Moussa Sy mhm. expliquer li ñuy def doomam mhm. yaayu xale bi soxna euh, Khadija wax bay jooy keroog ku seetaan vidéo bu soxal tooy na ñu daaneel seen kàddu nag ne ñu ngi woote wàllu ku leen mën dimbali rek ñu jël ndax mënatuñu jot seen doom depuis bi que ñoo ñu nekk ci genre xaw ma église la xaw ma lan. seen euh, euh, benn jàngu. bu ñu tuddee universel. Euh, depuis ba mu tegee tegoo seen loxo ba léegi. Mhm. mënatuñoo jot seen tool. ba mu waxee loolu. maladie woo laal la sekk bu dakaar ba mu ne ko lijjantil ma téléphone góor gi. Mhm. mag ñu mel nii di wax bay jooy. suñu bàkk boobu ñuy wax ah innamal mu'minuuna ixwa ci occasion yi lañ ko war a jëfee. Mhm. jullit jullit jullit ay mbokkam ba mu ma ko paasee ma ne ko góor gi maa ngi jégalu de. ah mu ne ah déedéet kay man kay man may sant yàlla comme yéen Jamra yéen a woote. Mm-hmm. ma ne ko waa li xew lan la. Mm. ni ma ko tënkalee daal nee na dañu am seen benn doom bu ñuy wax Mariama Si. Mm. Mariama xam nga rek suñu mbokk alpulaar yi. Mm-hmm. deretu Cheikh Oumar Fouti Tall mooy daw seen yaram ci mm-hmm. xër ci diine. kër googu boo fa demee daanaka couloir bu ne buntu nekk bu ne am nay sajaada. du ñu rate waxtu. mun ne ma loolu laa yare suma doom mu fonk diine te yàlla itam ci ni mu amee jom ci jàngum école mm-hmm. mu ne ñu am bés rek damay bañ a tudde turam ndax dossier ma ngi ci police parcelle ci commissaire Kébé mm-hmm. mu am as ndaw bu ñuy wax nangam mm-hmm. dal di fexe ba jokkoog suma soxla mais ko waaw jamono dafa metti eh, surtout famille retraité eh, affaire fourniture scolaire yi affaire inscrit marché ak euh, frais de scolarité yi bref ñun dañuy def social ñu bëgg leen dimbali loolu aspect boobu ngeen bàyyi foofu ngeen ñu féetewoo ñu féetewoo Mariam di ko fayal mais xam nga crise économique bi ñu nekk per de famille retraité ak yaay joo xam ne mu ngay jëm mag amatul kàttan boo ko déggee da ngay sant yàlla rek daan ne xéwal ñëw na noonu lañ leen wóoloo bàyyi leen a xale bi waaye ñu seetlu ne xale bi bu euh, wàcc jotee day ñëw ay vingt une vingt deux heures bu ko bàyyi bi laajee foo ne woon mu ne dañu bari woon exercice te loolu xam nga du dëgg ndax amul benn école buy téye ay élèves ba vingt deux heures bàyyi bi bàyyi mu jàll ñu toogati quelque temps euh, mu commencé amul guddee wàcc sax waaye fanaani fa def nangami fan di ñëw mu am bés nag famille bi woo ko taaj ko réunion de famille wax ko fi mu bokk fàttali ko ay valeuru famille am euh, mujj gi yaay ji ne ko li ma seetlu sa baay itam loolu la seetlu ba nga dugganteek ñii ba léegi nangutoo gisatuma la nga teg si dëpp sa jë di julli fii ci kër gi ba nga dugganteeg ñële ba léegi gis naa ne ni nga ma daan jàppale ci waañ bi ay samedi ak dimanche parce que jàngu yow yàkkamtiloo ba si heures jot nga def sa toile rek ne tër dem ca ñoom. Mhm. mu ne ko man ñi la jur nag maa lay ñaan. Mhm. Mariam ñii xanaa mënoo leen bàyyi. d'habitude dafa nekk xale bu am kersa d'habitude mais bii daf ko xool les yeux dans les yeux ba tiwo koŋ ne ko mënuma leen bàyyi si la parent yi tiit nag mhm. Mariam nag xam ne famille bi kenn jubatul ak moom mu daal di demaat ci gaa yi ba mu demee ci gars yi bàyyi bi fouillé bagages yi wane naa ko ci réseaux sociaux yi dama ko fàtte indi hmm. fekk fa un paquet de prospectus boo xam ne moom lañuy séddale ci xale yeeg ci mbedd yi hmm. naan la waaw on a euh, des séances de messe collective di lundi au samedi lundi jàngoro boo fa indi boo ñëwee ci messe collective yi da nga moom mardi problème financier boo am hmm. ay bor jafe-jafe donc Euh, problème àdduna yi ñu liim ko bu ne ñu wax ne am na prière bu kay réglé mu ngi ci kii bi saagu xale bi baay bi génn ci saag bi benn butéel bu gàtt am ndox ginnaaw gi nag la ñu yëg ne loolu sax après dinaa si expliquer jo parce que wax waxtaan naa seen commissaire Kébé bu Parcelles Assainies ba paa bi gisee yooyu ci bagaasam mu xam ne nag xale bi li wëlbati xel bi du neen dem ba commencer di renier ta foi originelle musulmane yamoo ci loolu nga commencer di défier l'autorité parentale mu ne yaay ji ne kii du Mariam bi ma jur mm-hmm. rax ci dolli commencer di daanu rab te daanu ko def yaay ji ne ko maa la ëmb juróom-ñeenti maa la jur yar la ba nga dey nii mosuma laa xamal daanu rab ba démb sa ay moroom ñoo la gàddu indi la fi jagat jagat indi la day en kon am na am na ci loo ne. Mhm. alors comme que nag nee woon na mes nag. Mhm. ci lañ defee vidéo boobu bay jooy ma ne ko waaye yan matuwaay nga jël moom bàyyi xale bi. mu ne waaw euh, jeunes yi nekk Grand Médine parce que ñoom Grand Médine la ñu dëkk. Mhm. ak jeunes yi nekk Parcelles Assainies unité diis ndax foofu la euh, seen jàngu bi ne. universel jàkkaarloo ak euh, terminus tataay jeunes yi boole nañ seen doole ça fait des dizaines de jeunes. nee na ba sàngam dañuy taal église. ma ne ko boo leen ko defee tooñ. Mm-hmm. parce que dañu ne dans un état de droit kenn amul droit fajal sa bopp. mu ne ma nu may def ma ne ko defal plainte ñaari plainte benn bi pour détournement de mineur parce que Mariam 2006 la judd. Mm-hmm. te loi wu Sénégal nee na doomu jàmbur bu dee majeurugul kuréel boo ko mënti bëgg dugal rek ak lu sa yéene rëy rëy équipe football équipe basket wala ASC sportive et culturelle au préalable da nga war a sàkku ci ay waajuram lu ñuy wax mm-hmm. autorisation parentale defuñu ko kon détournement de mineur am déposer une deuxième plante bu ñuy wax séquestration de mineur parce que tëj nañ ko ba pare xañ ko ay way wayjuram ma ne ko bul déposé plainte bi te ñëwuma xaar ma buntu police parcelle maa ngi ñëw mm-hmm. en mooy de dix minutes parce que soriantaw ñu man maa nga yof ji may mm-hmm. ma daal di ñëw ñu dugg seeti euh, adjudant kase moo ñu introduire ci commissaire kene di ku baax bu Parcelles Assainies lii ma leen tënkal ni ma tënkal ko yëpp mm-hmm. ma ne ko nag xale yi seen yaram tàng na bëgg nañu song église maa leen téye ak bàyyu xale bi ma ne ko li may ragal te xëy na fàtte xaju fi mooy la xewoon en juin mille 2011 fii ci Yoff foofu tamit dafa am église bu ñëw samp fa eh, di def comme ñi su bëccëgee ñu dugg ci quartier bi Wakaam Ngor Yoff les villages traditionnels di fa joxe ay prospectus di leen dig moo émerveille am na xale yoo xam ne ba ñu bàbbee ko def ñaari fan ñett seen xel ñagas ñu dellu si mais ñi xaw woy xol dem nañu ñoo ñooñu tamit seen bàyyi même constat xale yi bu ñu ñëwee kër ga dootuñu julli xale yi dañuy défier l'autorité parentale ma ne loolu pour nga am ci lu leer yow commissaire Kébé bu parcelle da ngay woo la commandant de brigade bu Foire dana la wax lépp parce que ñoom itam dañ jóg ne dañuy taal église bi man maa leen non parce que boobu j'étais fa tegoon ma ne non danaa leen boole avec le commandant de brigade ngeen def plainte mu régler ko waaye bu leen fajal seen bopp waaye xam nga sama mbokku euh, kii lébu yi mhm. dañu tàng ndeke sans tàggu kenn ñu jóg ay bidon d'essence ay kuuru Baay Faal ay yat song église xeex bu metti bu tar ñu dajale fauteuil yi ci biir ak mobilier yi sotti essence taal ko y a eu des blessés et des arrestations mhm. ma ne ko soo bëggee tous les détails nga woo la commandant ma ne ko loolu laay bañ mu xew Grand Médine ak unité 10 bu Parcelles Assainies alors mu ne ma maa ngi la ci remercier léegi daal da may may ba suba ma actionné la section recherche mm-hmm. ñu def fa perquisition comme kenn mën na leen jot seen doom baay bi ne ko li ma la fàttee dolli sax parce que commissaire yi moo ko laaj ndax dem nga laaj sa doom mu ne waaw dem naa ba foofu ne leen lii ngeen def sama doom soupçonné naa ci à part prospectus yi ngeen ko jox butéel bii parce que gis naa saa bu xëyee diwoo ci guux ci euh, raay bopp beeg raay yaram bi xawma lii moo wëlbati xel ni waaye tooñ ngeen mu ne leen nag li indi wax yëpp da ngeen ne da ngeen doon def social di pour jàppale ma ci fourniture bëggatuma delloo leen ma suma doom commissaire bi ne ko lu ñu doon wax mu ne bañ nañ mu ne ma bàyyi bàyyi lak man alors sa ëllëg sa commissaire Kébé bu parcelle daal di actionné section recherche ñu dem ca bërëb ba seen jàngu bi euh, universelle euh, unité 10 jàkkaarloog terminus bu Tataay pour defa perquisition ndeke yëg nañ ko la veille ñu fab Mariam exfiltré ko yóbbu ko ci seen jàngu bu ne Tëngéej mhm. intention yooyu sellul mhm. qu'est-ce qui se passe derrière affaire mafia yooyu mooy lan alors ñu yóbbu ko ci benn kilifa wu jàngu boobu ku ñuy wax Jo Korea porté nañ ko plainte déjà euh, ki ma doon bañ tudd léegi te nekk fii ci bërëb bi euh, commissaire Kébé jox nañu deux convocations jox naa leen ko kon ñoom deux semaines prochaines ñu dem wuy ji parce que dëkk bi dafa am yoon alors ñu exfiltré ko yóbbu ko Tëngéej cellule Jamra ba ne Tëngéej ma xabaar leen mbir mi ma ne lijjantil leen ma ba xam Mariam bi ñuy wax ne mu ngi foofu wala déet waaye en moins de trente minutes ñu confirmer ma ne mu ngi fi ñu wax ko commissaire ñoom ñuy waaj nag jël yeneen matuwaay man en attendant ma woo presse bi yëpp kër ga alerte état bi. tudd président Macky Sall tudd naa Antoine Diome ma ne yéen a yor suñu kaaraange suñu sécurité. ñee ñi dugg ci kër yi. di def ay porte à porte. surtout am na kër yoo xam ne baay bi day liggéey yaay ji di liggéey euh, mag newu fa. ci la ñuy profité dugg propagande xale yi jël ndox jox leen ko euh, promettre leen moo émerveille alors. dal di ando def lavage de cerveau xale yi endoctriner leen dal di leen pousser à renier leur foi musulmane originelle ba pare fexe ba pousser leen à contester l'autorité parentale ma ne loolu la ñuy def alors ma ne ko nag léegi euh, monsieur le commissaire ci yow la yaakaar sinon xale yi dinañ jox fayal seen bopp alors ba nga xamee ni def naa point de presse boobu ca ngoon nga sa tàkkusaan nga ñoom ñu demaat jëli Mariam Tëngéej yóbbu ko ba indi ko Dakar. ñëw ba amuñu fédéral ba jàddu gauche xam nga foofu la section recherche gendarmerie fan ñu tijji buntu oto bi sànni ko foofu tëj seen oto dem. li hmm. affaire gangster la. Hmm. alors ma daa di euh, annoncé ci ne ñu ngi gërëm le commissaire. Euh, Kébé hmm. Mariam feeñ na. waaye Mariam moo feeñ. waaye j'ai reçu depuis bi réseaux sociaux yi annoncé ne Mariam feeñ na Jamra porté na plainte j'ai reçu vingt deux cas yu mel noonu ay pères de famille yu dëkk fi ci Gédo parce que dëgg na am nañ fa benn benn jàmm ah, ñu dëkk euh, ñaari tali am na ñu nekk Parcelles Assainies unité 3 am na ñu nekk Cambérène am na ñu ne Thiès am na ñu ne Tëngéej vingt deux cas te benn bokku seeg sa te xamante wuñu je dis ça en réponse c'est grave, quand même. au pasteur Félix Birama Dione insolent bi dem ci réseaux sociaux yi xas ñëpp saaga ñëpp ne Mariam elle ment euh, te te elle a été manipulée moom ak ñi ko manipulé c'est des menteurs voilà benn exemple ngoog bu hmm. wane ni 22 cas yi xamante ak Mariam ils souffrent tous du même problème sama doom jël nañ ko mënatuma ci jot ah bu ko defee bi ma annoncé ce que nous comptons faire parce que dama ko dajale nee naa leen li Jamra daj pour libérer Mariam mënuñu ko au cas par cas sama santé mayu ma ko ñi ma àndal itam mënuñu ko. Mm-hmm. indi leen ko ñu def une plainte collective. Mm-hmm. ajjuma la ñu naroon jël audience avec Antoine Diome ñu ngi koy jaale sax il paraît que way juram. effectivement euh, Alaaji Maguette euh, euh, Diome mm-hmm. moo wàññeeku. moo tax dañuy bàyyi après Korité. ñu def délégation ñëw ne ko 22 pères de famille li dal Mariam moo leen dal. est que yéen nag yow yaay ministre de l'intérieur. chargé de la sécurité waaye aussi autorité de tutelle de tous les lieux de culte mm-hmm. te ñii ñu ngi tooñ mm-hmm. musulmans yi werante amul ne te loolu wax ju yàqu la sax il constitue une écrasante majorité mm-hmm. ñun bu ñu neexoon mobiliser ñoom i ustaz Pape Samb ñoom i ustaz Assane Assane Gueye Lamine Gueye ñu jóg boo xam nga démb dañu nelawul moo tax <laughs> bu ñu neexoon mobiliser leen ngeen yore ay photocopier euh, addis ki mm-hmm. extrait versé ko rek dugg ci biir calorie di propagande mm-hmm. waaye c'est indécent doo leen ko def mm-hmm. parce que yéen alxuraan moo leen yar alxuraan moo ne làkkum diini kum wala diini waaw ñoom ñu ngeeg seen diine yéen a ngi seen bos ñun on fait pas waa lan moo waral yéen ngeen bàyyi seen frontière fekk si ñu ci suñuy tranquillité di intoxiquer suñu doom di leen def ravage de cerveau di leen euh, euh, renier loo seen gëm-gëm ak di xajamal seen i diggante ak seen waajur foo leen ko teg loolu tooñ la am na ñu may naan euh, on est dans un pays la constitution consacre la liberté de culte la constitution consacre la liberté de culte la mais elle ne elle ne consacre pas la liberté d'aller envahir les maisons des musulmans di intoxiquer seen doom di leen génn ci diina ji di leen dugal ci loo xam ne kenn xamul ban diina sànn ko alors léegi nag fa lay jeexale euh, maa ngi gërëm kilifa bu bokk ci ñoom ku Mm-hmm. parce que ñoom dañuy tooñ seen bopp ñoom catholique ci seen biir ñeneen li ma woo ci ay frères catholiques yu mer kenn xam na mu toll mm-hmm. ñoom xamuñu loolu ma leen il a jamais eu de problème entre la ah, communauté musulmane et la communauté catholique ma leen euh, le cardinal Théodore Adrien Sarr mm-hmm. ñépp xam nañ digganteem ak sa sama oncle maternel di Alaaji Bassirou Diagne Maram Diop rahmatullah alayhi ndax su ma yaay Fat Diagne moo nàmp jox ko mu nàmp mook Théodore comme ay frère publier naa fan yi seen photo ci Facebook bi doo gis mu ñuy oowante leur titre officiel ah grand Serigne comment ça va ah cardinal déedéet. kii def na alors mon frère alors mon cousin. Mhm. ay mbokk lañ. ma ne ko man ñii di wax ak yow. mon oncle paternel. Mhm. topp ci El Hadj Bassirou Diagne muy Ibrahima Diagne. Mhm. nekkoon na fii directeur général caisse de péréquation contrôle économique avant muy gaañu mu nekkoon euh, directeur foire. ak président de la fédération de. basket. jabaram donc sama nijaay bokk ak sama yaay ndey ak jabaram xam nga lan la ci man umpañ. jabaram Césarine la tudd. am na pas de problème ma ne ko mhm. Ibrahima Guèye. Mhm. jabaram la tudd. Mhm. problème ma ne ko daaw jéeg bi mu amee ay saay-saay yu dugg ci euh, sëgu Saint-Lazare yi. profané tomb yu def conférence de presse porte plainte. Jamra parce que loolu ñu def dafa ñaaw. ñu ne procureur lii noo mën a pour leeral ko ni mu gën a gaaw balaa seytaane dox diggante jullit ak yeneen commune yi procureur dimbali ñu ci selere ñu jàpp waaj waaye ba ma ñëwee xool waaja ay ree jàpp ma te sama xel dal aussi parce que dama def noonu ay jullit ñooy dem def loolu ndekete benn sulaar la boo xam ne su banqué day dem ci sëgu catholique yi xam nga ñoom dañu mën a toppatoo seen bàmmeel y a des croix en laiton y a des en bronze yooyu lay jël dem si fere jaay ko ba am astuutam dem ci baar yi bu jeexee mu demaat ma ne leen nag kon y a jamais de problème entre les musulmans et les catholiques ma di leen ñaan nag yéen Sénégalais yi bu moytu leen def amalgame dégg naa ngeen naan catholiques yi catholiques yi c'est pas les catholiques mm-hmm. benn xeetu nit la yoo xam ne dañuy contester sax catholique yi mm-hmm. parce que ils, ils ont l'autorité du pape mm-hmm. ils ont rejeté la sainteté de Sayyidatuna Mariam mm-hmm. Mm-hmm. Mariam bi nga xam ne alxuraan daf ko fonk ba utal ko saar surtout Mariam suñu mbokk catholique euh, yi utal ko benn ñaan bu ñu wax je vous salue Marie kon bu leen def benn amalgame on n'a pas de problème avec les catholiques problème bi dinañ ko jox Antoine Diom mu réglé ko genre église yi di implanté wu partout te kenn xamul ban xeetu diina la di si ñuy doom di tooñ loolu lañu bëgg état bi rek la